ku dajale infrastructure yi paradisiaque yëpp maanaam kër boo xam ni mën nga ne aljanna la wala piscine ya nekk ca biir kër ga xam nga sunu borom moom ni moo waxe baat ak ñun niñ koy waxe bokkul parce que ñun piscine ci arab dañuy wax al masbah waaw waaye bu dee sunu borom du tudd ay masbah day wax jannaatin wa uyuun uyuun boobu moom ngay traduire te ay piscine waaw bu dee jannaat muy li ñu tuddee parc am na ñoo xam ne ci seen kër la ñu am ay parc yu bokkul ak parc yi nga xam ne moo nekk ci quartier yi ak feneen ak feneen boo duggee fii ci Johannesburg y a plusieurs parcs parc mu tudd waaw waaw di nga gis di nga gis façon que bu nekk ci architecture bu nekk façon architecture boobu moom la alquran tudde muqaamin karim waaw waaw wa naamatin kaanu fiha fatihin di nga sunu borom tey jii naamatin kaanu fiha fatihin mooy casino yeeg yi ci des waaw kon lépp luy structure bu paradisiaque am nañu ko am fii ci àdduna mais boo leen xoolee seen dund yërëm leen ndax seen dund yëpp enfer la waaw looluy tax dafa am loo xam ni ñoom moo nekk seen nattu te moo di tax bi wolof wax wolof dafay wax baax te dafay mel ni ni muy waxee baat bi dafay moomale wax bi ku ko moomul maanaam li ngeen di dégg wolof naan ku la abal bët nga xool fa ko neex ku la abal nopp nga déglu la ko neex laa bal loxo nga def ca li mu bëgg ku laa bal tànk nga dem fa ko gënal mais foog nga poser question ki la abal bët kan la parce que ñun duñ koy wax dañ koy wax mel ni jaam ni yow moo la abal bët wala jaam ni yow moo la abal nopp ولا جامن يوم ولا عبل لقو ولا جامن يوم ولا عبل تاك تفكت بلا يالا يعبل بت كامينا بلا يالا يعبل نوت كامينا جيت نتاح سبيت فاستحلست بربكم ba yàlla yi xam mi ku jaam yi di leen laaj kuy seen borom ñun nuñ ko xam ne ba ni bare ak it lu leen dégguloo baax bi kon yàlla ba mu la abalee bët du tey ba mu la abalee nopp du tey ba mu la abalee loxo du tey ba mu la abalee tànk du tey kon nag nga xool fa ko neex moom sunu borom mo gën nga xol fu neex jàmm ni yow nga déglu la ko neex moom sunu borom moo gën nga déglu li neex jàmm comme donte way jur bu la jur la وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا suñu borom neena way jur yi la jur sax bay beeg yaay ji bu ñu bëggee def ci yow luy tax dootoo xam may kan ndigal ba tebbi ko waaw ndigal ba tebbi ko te du la téré dess ak ak ñoom waaw parce que xam nga lu tax mooy moom mi la abal xoolul fi ko neex dégluwuloo li ko neex moom sunu boroom jëfoo ci loxo bi li ko gënal doxoo ci tànk bi fa gën pour moom gis nga ëllëg xam nga moom dafa am fayda du laaj yooyu du laaj sa gémmiñ pour ngay lay parce que nit dafa mën a lay wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala comme nit dafa mën a lay te yàlla it ëpp na nekk di werante car te nit dafa mën a lay moo tax mu ni ëllëg damay tëj seen gémmiñ ndax da ngeen a lay yi ma abaloon laay laaj dinaa laaj bët bi ndax xool na fu ma neex danaa laaj nopp bi ndax déglu na li ma gënal dinaa laaj loxo bi dinaa laaj tànk bi al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun yàlla foofu lay lay tàmbaleeg yow waaw looloy tax yar bi lool lañ koy doye xam nga yar nekkul ci bu fi nit ñi nekkee rek nga sëgg sëggal sa loos ni doo xool kenn yar newul foofu yar comportement rek la milieu bu ne la milieu ba laaj te gor war koo nekkee façon ba nga koy defee boobu rek moo sab yàlla tax na waaw hmm? man maa koy def baax na ñu xool ok ba tax na Sëriñ Cheikh daf ci wax wax bu am solo te mooy lu ne nga am chance ba nga am chance ba nga fexe ba décrocher cër ba moo ko gën di farata parce que chance dafa nekk couteau à double tranchant dañ leen fàkk ñaari boor moom la xusnul xab dana am mais suuxul xab aussi dana am benn nga am une bonne chance wala nga am boog malchance waaw moo tax chance kenn du ci wékk sa bopp ndax mën na ñëwe nii tey ëllëg mu wëlbati ko ñëwe neneen oto nag lu ne nga fexe ba décrocher ko ak sa ñaq décrocher ko ak sa jikko décrocher ko ak sa taxawaay bu nit ñëpp dajaloo woon pour xañ la ko te sunu borom naru ko kenn mënu la xam nga la yàlla jox looloo tax am nga li ñoo wax naan bari na koo ñee te ñeewul boppam mooy li leen wax ci gannaaw tuuti koo gis mu dajale infrastructure yu paradisiaque yépp kër yu rafet oto yu rafet am bureau yu rafet am un peu de mais boo amee seet lu tuuti xam ni dundam ñeewuloo ko yaakaar naa bu ngeen dégloo ci waxtaan ya passé woon ci Sénégal am na bu ma leen doon nettali ca hôpital Abass Ndao ñaari ouvrier yuy liggéeye ca hôpital bi wéeru ci benn oto oto xaama yooyu boo xam ni mu ngi rafet ba noppi am vitre teintée ñaari ouvrier yi wéeru ji nag di jëw borom oto bi nekkee borom oto baa ngi ci biir te gisuñu ko ndax vitre teintée bi ñaari ouvrier yi naan ah yàlla daal ni muy dëdde àdduna dañ ko xoolee ñun ñaar ndékki sax amaguñ ngi taxawal lu fii lu ñu ndékkee sax am ko xam ne ni borom xaamaam bii de kii di boo boo demee la mu ndékkee tey te ki ñuy wax mu ngi ci biir naka la ñu wax a wax ba noppi borom oto bi wàccee vitre bi ñu tiit te dañu defoon ne newu ci mu ngi ci biir mu neen gis ngeen ni ngeen di àttee da ngeen di juum leen yéen yéen ak mooy àtte ci oto bi naan sama oto bu rafet bi naan xam naa li ma ndékkee tey di wane ni yéen ndékkiwu leen mu leen bu ngeen xamoon aleykum salaam bu ngeen xamoon li ma wut si fii kon di ngeen wax leneen ñu ni ko xam ngeen lu ma wut si fii ñu ni ko am mu ni mënuma tur ndox te defaluñu ma pare taxabaare bi ñetti weer yu ne dafa war a ñëw ñu changé ko ndax bañ microbe yi yàq ko loolu laay ñëw nii di seet si sama médecin pour que ñu changé ma appareil bi mu ni ko bu ma amoon li ngeen am tey jaral na ma jël xaama beeg yépp jox leen ko waaw waaw pour nga xam ni bari na koy ñee

te itam boo gisee ma ni la bari na koo ñee te ñeewul boppam bari na it koo gis mu am lu nekk te dundin ba dundinu presque jaxim la dafay dellu ci ni wolof yi di wax ñax gu wow dana lakk ñax bu doy maanaam ni nga koy dégg mooy la xam nga xudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu xam nga jullit bu dund lislaamam bu waxtu julli jotee mu sol yéreem ya gën a yiwe jël ci jàkka ji pour jox boroomam li mu yelloo bu dee chrétien aussi la même chose comme seen dimanche yi tey ji parce que dafay am ñuy trompé ci alfarqu bayna diine wa diyaana quelle est quelle est la différence entre une religion et un culte